bi commencé gul. Mhm. dama bëggoon rek ñu ñu ñu ñu ñu am lu ñu euh, wax tuuti mhm. téléspectateurs yi. Mhm. ci université Cheikh Ahmadou Bamba. lu toll ci vingt milliards lañ ci dépensé gum. sur trente sept milliards. Euh, euh, maam Thierno Mbacke mi coordonné travaux yi moo ñu ko xamal. ma bëggoon ñu am luñ ci wan. téléspectateurs yi. Serigne Saliou am ay kaddu rek yu mu ci yëkkati. ndax lii nga nekkee di def. tuuru média yi di conférence lii ngay def nii lu mel nii la ñu fas yéene amal ci bërëb yu mel nii nga xam ni ku ne dina fa mën dem am possibilité am xam-xam xeetu xam-xam yi ngay wasaare ci média yi su boobaa nag sénégalais yi dootuñu xaar rek quartier général dinañu am possibilité même bu dul général di mën di gëstu ji ci université bi donc lii dafa ñëw ci moment bi mu waree ñëw Serigne Saliou bisimilah mmh. xam nga Cheikh Ahmadou Bamba. Mmh. dafa ñëw rek gaañi jaar nii mu ne leen ni ngeen jaar baax na waaye kaay leen nii la. Mmh. kaay leen nii la mooy dafa li mu njëkk a wax mooy falay sa yuujibu. sawaadul jismi sawaadul jismi safaahatal fataa wa suu al fahmi. dafa révolutionnaire der bu ñuul. ci ñu war a xam ni ñoom war nañ mën a doon ay intellectuel de haut niveau bàyyeewu koog tubaab yi mbaa xees ni mooy mooy mooy bayit wi ma wax fa laysa yujibu sawaadul jismi sëñ tubaa nee na tekkiwul ni yor der bu ñuul safaaxatal fataa day tax a gàttub dégg daal di wax ni xam lu ji ku leen tere xamlu moo ngi leen di dàq jëme ci réer fa man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami am na feneen fu mu wax sax ni kooku di leen ko tere mooy xalifab iblis ci kaw suuf fa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatul laanul mujrim nee na ku leen teree xamlu ku leen teree sàkku xam-xam sëñ tubaa nee na mooy xalifab iblis ci kaw suuf waaye dàq na leen jëme ci réer te réer mooy yóbboo safaan ba moom nag bëgg xam-xamuk borom tubaa ak topp xam-xamuk borom tubaa dox ci xam-xamuk tubaa ba taxoon mu wax ni warlul naa leen ay taalif yoo xam ni ku dul sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa mi wax wàcce wàccoon ci moom dana ci gindikoo kon moom xam-xama ko ñor ak xamal koo mën a doon mhm. mu war laa xamal moom mu gàlloo xamal la moom siñ Tuubaa dëgg na dafa ne alaya tawalif allati yahtadi biha ija saa rabbi xayru man faada bil wahyi mhm. ku dul sayyiduna Muhammad mi nga xam ne Jibril la daan ñëw di wax moom mhm. warul naa bind loo xam ni man borom Tuubaa boo ko xam loo yokkoo ci boo ko xam loo gindikoo ci boo ko xam loo jànge ci yàlla mi maye ci mbaaxam gi may ko université bi mu xamal ñu ne am naa université bi te bu boobaa bu ñëwee dina jële ñëpp ci ci réer waaye lu ne nag sëñ tubaa mbiram yëpp noonu la lépp lu borom tubaa wax la sëñ Modou Moustapha Mbacké mu baax ma daa wax ni lu ma borom tuubaa wax te gisaguma ko moom laa gën a gëm ci li ma gis dafa waxoon ni moom Cheikhul Khadim bil Moustapha lii banaal xudduusu madrasatan seen borom yàlla dana ma defal ci darajey sayduna muhammad ab jàngukaay bihaa yazulul ada wal jëhlu wal kabad ndax dégg nga ma oustaz Assane dégg nga wax bi bil Moustapha lii banaa banaa lan la fenlu maa di tabax na ko ba waaw booba fi sëñ Touba nekk université bii sëñ taxaa di tabax tey yàlla tabaxal na ko boroom tubaa mm-hmm. jox na ko borom Touba moo tax mu ne lii banaa. loolu maa mooy verbe passé. verbe simple. noppi na ba pare. waaw noppi na sëñ Touba moo waxoon ni. d'accord bil Moustapha mm-hmm. lii banaal xudduusu madrasatan. Mm-hmm. moom mu ngi wax sax sëñ bi.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 aza wal jëlu mhm. wal kabaru kon suñ tubaab moom amoon na université bi date bi nga xamante si nii moom lañ ko war a taxawal mooy jot mu yebal ki ko war a taxawal mu taxawal ko wërsëgu suñ Muntaxa la mhm. muy wax ji sëñ Abdou Lahad Mbacké mhm. looloo tax mu ne sa sama kenn dara waaw wërsëgu sëñ Muntaxa pare na ba pare pare na moo tax mu ne lu ci waaye man rek ndax mës ndax mës ngeen gis projet bu mat 37 milliards wala 35 milliards gaawe nii mu gaawee ndax mës ngeen ko fee gis te ñi koy def buñ koy jëf dañuy effacé wu amul kenn ku naan maa ci def lii te murid dañuy jóg rek jaayanteel seen bopp moom sasul kenn dara murid yee jóg jaayanteel seen bopp ba mu ah. tegee xeeroon leen acca lañ jóg jaayanteel seen bopp mas naa ko wax nag fii ci plateau bii ni leen alal ci xol la sax mhm. waaye borom Touba. fi alal war a toog fa la toog ci murid yi moo tax luñ ci am man koo man koo mën koo dépense ci yoonam mooy lii macha allah sëñ bi mhm. usilu bi hal ada wal jahlu wal kabat waaw lan la ñëw ngir jële ko fi ay dor mhm. ak réer waaw réer daa war a jeex ci àdduna bi mhm. rawatina ci ñun ñu ñu ñuul ñi nga xam ni. Mhm. ca démb ñun lañ jàppe woon borom xel yu gàtt yi. Mhm. borom digg yu gàtt yi. ñun ñi ñu jàppe woon borom dégg yu gàtt yi mhm. moom ñun la suñ tubaa xamal ni lii bu noppee parce que junj bu njëkk ba mooy fa lay sa yuji bu sawaatul sawaadul gis mi safaatal fataawa suwal fahmi moo war a université bi macha allah allahu akbar parce que ñi ci war a jàngale ñu jébbalu lañu nekk ci toog ak seeni xam-xam ci réew mi te bis bu université bi noppee di nga gis loola jombal ci àdduna incha allah ndax ñi ciy jàngale ay volontaire la ñuy doon yoo xam ni ñooy jaayanteeg sëñ Tuubaa seen jàngale bi te yor xam-xam bi toog ci sunu réew mi macha allah te feeñuñu woon waaye dina dinañu feeñ incha allah mooy lii sëñ Pape Cheikh wax ni. bu boobaa gëstu bi dootul doon ñëw toog ci quartier général di wax. Ah, ah, ah. su boobaa dootuñu xaar quartier général. dootuñu dootuñu xaar sa Serigne Saliou Samb. nit dina fa dugg. waaw fekk fa benn genre tablette parce que technologie day avancé. Mhm. cliquer li mu soxla ci si Amadou Bamba mu wax ko ko mu jàll. Mhm. Mhm. Ah, foofu la jamono toll. ba pare mën ko am. Ah, ah. publier ko si adduna bi. lu xale ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk dégg wala ñàkk ñàkk jàng arab wala dara. mën faa jëlee ci université boobu loo xam ne xam na ko ci borom tubaa ak doctrine ak li mu doon dund parce que borom tubaa ku xam doctrine am rek di nga jàll. ñàkk koo xam mooy affaire bi mais ku gind ko ci moom rek jàll Cheikh Amadou Bamba ndax li mu teg lu leer nàññi la moom li mu teg lislaam ju leer nàññi la ju amul nañ dem fii wala fee dafa wax ni sama diine man Ahmadou Bamba mooy téere bi fi sayyiduna Muhammad indi bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul loolu du sama diine diini kitaabul Mustafa laa xëyru sama diine mooy téere bi sayyiduna Muhammad keneen ku ko wutal leneen moom suñ Tuubaa lu dul lii fi njool màkka indi yaa ko waxal sa bopp l'islam ji fi rasulullahi indi mooy l'islam yi borom Touba ji nga xam ni moom la yoroon te musu cee damm xat musu cee manqueel tarfatal ayni mësta yokkal njool màkk ci li mu indi woon tarfatal ayni suñ Touba l'islam sec la indi moo tax mu ni wa sunnatuhu mm. inshaa rabbi ubayinu nazafatuhu kulli min lahwi taharat wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu wax na feneen ni diinun siwa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu moom laa yeesal si moom lislaam la ñëw yeesal si wax na feneen tamit ni wa biya jaddidi sabil bila idan aw alami ci man Ahmadou Bamba mii nag la ñu yeesalee lislaam la yàlla yeesalee lislaam yeesal googu nag moo tax mu wax ni fekk naa fi ñu doon liggéeyal rasulullah parce que xaadimu rasul la dafa ko boppam nag dafa boppam doon xaadimu rasul moom Cheikh Amadou Bamba yàllaa ko ko defal waaw dafa wax ni kaw ni xadiman nabii wal kitaabi fadlun min al wahaabi laa min iktisaabi sëñ Tuubaa nee na nekk gi ma nekk di liggéey Sayyidina Muhammad ak alquran kaw ni ya xadima nabii wal kitaabi fadlun min alwahaabi don de jëla yàlla moo ma ko def moo ma ko nommé def ma ko mm-hmm. laa min iktisaabi mm-hmm. émission bi commencé gul sax ko woon <laughs> ba commencé ah, Assane Assane dugguñu ci waxtaan bi <laughs> dugguñu ci waxtaan bi <laughs> émission bi commencé yëngu rek émission bi commencé mu teg ci mu teg ci leneen suñ pap liggéeyam boobu muy liggéey hmm. ci lislaam mu wax ni fekk naa fi ñu liggéey waaye seen borom ma jël nommé ma ci seen kanam ni ma yaa jiitu xaddamani llahu ala alqudaami bil muntaqal musabbitil aqdaami kon ba ngeen ñëwaat voilà université bi daal <laughs> ñëpp ci war a jëf ñëpp ko war a song uh-huh. ndax bu ñëwee li muy jariñ du du yam ci réew mi dina wër àdduna voilà loolu échauffement bi la woon euh, ci université bi euh, ñu ngi waaj tàmbali waxtaan bi Cheikh Diop ñu ngi lay ziar bu baax ca kanam euh,